réew mi léegi mer mi dafee bari moo tax bu ma nuyoo dama naan baa xol yaa ngi féex dee leen ree asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa euh, maa ngi nuyu ñëpp di jël nuyoo beeg siyaar bi di ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa Basiru ayadallahu wa nasrahu yàlla na ko fi suñ boroom saxal képp kuy sol sa dàll rek lislaam tax laa jóg yàlla na saw dàllu jotal di nuyu bu baax suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci biir kaso bi di ci jiital Cheikh Omar Bamba jóob di boroom xam-xam di kilifa di nit koo xam ne palaasam du kaso ñi ngi ñaan képp ku bokk daaru musti seen doom a ngi ci kaso bi te defu fi dara Cheikh Omar Bamba Diop dañ koo war a génne kaso bi ndax kaso du këram waru fa woon a def benn minute boroom xam-xam bu mel ni moom nekk fii Sénégal ñu koy tëj ci kaso te deful dara ah gars yi war nañoo xoolaat toogaay bi comme que nag damaa sol tey couleur ex Pastef ci këyit waaye ex Pastef ci xol yi looloo naqaree tas moom te yaakaaruma ne ñii ñu jàkkaarool mën nañ te loolu ku yàlla bind mënoo te sénégalais lenn la gën a bañ loo koy tere même doxaan buñ ne woon baax na kenn du doxaan nit da gis mu takk soxna na ma yàlla baal mu lew ko doom mu ne ko fa cëpp di wëri leneen damay ñëw ci tere ñu bëgg ñoo tere kii nga xam ne suñu yaakaar la fas yéene tabax réew mi muy président Ousmane Sonko nga toog ci sa saal bu ñu kilim jël sa njaboot di yi doom bëgg ko écarter ci xolu sénégalais yi dama ne leen loolu képp ku leen ko yombalal na leen wóor ne mi ngi wax sax lu mu xamul président Ousmane Sonko nekkul nit koo xam ne da ngay tëju ci sa bureau raaf turam dem tëdd di nelaw mu génn ci xolu Sénégalais yi comme nii rek loolu xale bu ndaw sax bi nga xam ne da nga koo loolu koo wax du ko gëm Sonko yàlla moo ko def ci xol yi mu dab nag mën naa ne man euh, du ne bokkuma ci waaye it mën naa ne dama bokk ci liggéey boo xam ne maa nga ca beneen wàll di def leneen ci mbiri président Ousmane Sonko waaye ñoom li tax nga xam ne lii bu ñee mouvement wu donga daara dama koy gëm man ab donga daara laa boo xam ne dama doon xeexal président Ousmane Sonko sama roq ñoom it xeebuñu ku yàlla bind ci réew mi damay jël exemple sama bopp man duma dara keneen ak keneen bu kenn fëgg sa bopp kenn du dara suñ borom rek a fi nekk waaye dafa am lum ñu wan donga daara yi taxawal lii Baye Mbaye dina ma may tuuti dafa am lu bëgg a leeral tuuti ci ci ci ci ci Cheikh Baara une minute nga baal ma Cheikh bi. ñoom ñi wër sonkoo ngeen baal ma ñi ngi yaatal di def liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la boo xam ne bis bu ci Sénégalais yi tegoon seen bët dinañ xam ne procès usmaan Sonko képp ku yàlla wàcce ci kaw suuf mënoo koo baare waxuñu ngir tëkku kenn chaque jour ma wax ko waxuñu ko it ngir di setal suñ bopp ngir ragal kenn suñ boroom noppi na ci lépp waaye nag nañ leen waxante dëgg lan lañuy soxla ci njiitum réew mooy jub moom la soxla waa président Ousmane Sonko lan la def président Ousmane Sonko bu fekkente ne fexe nañ ñun sénégalais yi ba dugaluñ ko ci palais bi ñun kon mën nañoo toog waa ji xool nu mu ko neexee waxuma la Amadou de mu xool keneen ku mu ko neex mu jëli ko teg ko fi ku mën a génn réew mi génn réew mi ku mu fi neex nga toog waaye dama ne ko yéeneem jooju loolu du am. président Ousmane Sonko kenn du ko seppi ci élection yii te daf ciy bokk xam nga dañ naan ay palaa palaa plan B ngeen jàpp ne nit yi dañuy nax seen bopp wala dañoo toog ci dara rek di waxantu mbir mi demewul noonu Sonko dafa nekk nit koo xam ne mbiram li nit ñi di séen moo ci gën a ndaw wallaahi liy baatin ku yàlla may dara Bachira ngay gis yow yow sëñ bi nga baal ma loolu jëru sax di wax di fësal ndax yàlla bëggut yenn yi te yàlla buñ gis suñu bopp ci liggéey bii waaye nit ñii ci ginnaaw nga xam ne ñëpp a ngi toog jàkkaarloog sénégalais yi du nit ñu waaye di amuñu jot te du nit ñu dof te président Ousmane Sonko ji nañu ngor goo xam ne bu demee ba toog fee di gis lépp ñu toog di yoqokote wala ñu tëj suñu gémmiñ kon dañ naan war nañ te ñun duñ ay warkat ay ñitti alquran lañ du ay kàccikat te lépp lu ñu wax nar nañ ko def loo wax nag yàlla suñu borom rek ko man waaye ñun donga daara yi lépp lu ñu wax nar nañ ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf <laughs> si kàddu yooyu Serigne Mara kon dañuy dem directement rek si suñu mbokk suñu xarit di ko dalal itam di ko tatagal Serigne Bara xam naa ne euh, embouteillage yi ni mu mel si Dakar moom moo waral euh, mu xaw a am retard waaye ñu ngi koy dalal bu baax te di ko jox kàddu yi sëñ Bara kon ñu ngi lay dalal. it ñu tàmbalee ci làkk yi nga xam ni mooy làkk yi gën a tasaaroo ci àdduna bi dafa fekk ni tey combat bi fi mu tollu dafa internationaliser boppam loolu moo tax ñu wax ak àdduna yépp parce que anglais yi dañuy wax ni the world in your hand maanaam àdduna bi léegi benn village planetaire la te li ñuy def fii bëgg nañ fu doomu sénégalais nekk nga jàpp ni yow lañ koy defal parce que ku xam daara xam produit yi muy produire lu jamono xat-xat ak lu pression bari bari war nañoo bu ñuy bindaat histoire ñu ni lan moo doon position doomu daara yi parce que nag sunu réew mi ñi ko libeere ñëpp ay doomi daara lañ réew mi dama ko yàgg di wax tubaab yi yàgguñu ci réew mi biñ fi ñëw dañ fee fekk ay université yu mag ay doomi daara samp ko mën nañ cee citer rek l'université de Pire nga xam ne ñu ngi ko fonde ci 1603 boobu tubaab yi xamaguñ luy sibilisation maami Cheikh Tahirou Fall mii moo ko moo ko sampoon di xaali Amar Fall l'université boobu ñi def la révolution Torodo ci 1776 foofu lañ génne boobu xam ngeen ni Sénégal xamagul luy république université boobu moo génne Mame Mor Anta bi jur Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul université boobu moo génne Thierno Saïdou Tall bi jur ah Cheikh Omar Foutiyou bi disparaître ci falaise de Bandiagara université boobu moom la ñoom Seydi Hadji Malick donn moom la Cheikh Ibrahima Niass donn moom la kunti yu donn moom la laayeen donn parce que université boobu li ko taxoon a jóg mooy fexe ba tubaab bi bañ fee samp mbërëm tax tubaab boobu nag bëggoon fee samp mbërëm ba léegi moo ñu toppee mboora moo tax ñun ñi xam démb xam li xewoon lu tey xat-xat suñu responsabilité daf ñuy may ñu taxaw moo tax ku yaakaar ni ñun ay parti moo ñu tax a jóg walla ay privilège xamoo li ñuy xeex ñun dañoo juddu rek donn di waxal aw askan man mii duma koy dama koy faral di wax man sama maam yëpp ci xare lañ faatu Cheikh Tahirou mi nee naa la maamam moo sanc xaali am Fane ca Pire sëñ Xaban Mbàkke maamam lañ exilé fii kon ñun li ñu donn leer na ci suñu bopp Ousmane ko nag li ñu booleeg moom dafa porté suñu combat dafa porté suñu combat de bu ko Macky Sall porté woon ñu ànd ak moom lii Ousmane ko porté bu ko Amadou Ba porté woon ñu dem ànd ak Amadou Ba mais dañoo leer ni porté wu ko moom combat tubaab bi la porté comme Ousmane Sonko moo porté sunu komba loolu moo tax ñu koy soutenir ci sunu komba parce que Ousmane Sonko waxu fi lu bees li mu fiy wax yépp sunu maam yi wax nañ ko ki njëkk a wax tubaab bi moom moomoo réew mi fii la dugg fii la nekk ci réew mi di Serigne Touba bi ñu ko woowee ci ñaari rakkay Ndakaaru ba dégg la mbër ma wax nga waaru kooku doomu daara la ki dóor zawiyam fii ci digg ndakaaru doomu daara la kon ku gëm ni doomu daara yi mën ngaa tabax réew mi te duñ ci joxe seen xalaat li wolof naan dangay taxaw di saw loolu mënul nekk pression mënul tax ba duñ wax sunu xalaat kon ñii wut ku ñu xoqatal nañ ko nañ seet yi ñeneen te bàyyi ñu fi ñu parce que li ñuy wax ci suñu deret yi lay daw te foo ñu génne dafa fekk nag dañ koy def ak responsabilité foofu la ñu wuteeg ñenn ñi ñun waxuñu pour waxandoo waxuñu pour par parloo dañuy wax parce que ci la bokk diine moo ñu ci boole histoire boole ñu ci ngor boole ñu ci fekke boole ñu ci yonent bi salaay sallam bi tax ñu bind jaam moo ni képp koo xam ne mbiru jullit ñi liy dox ci pénc mi ñoru la bokkoo ci sama diine yonent bi ko wax de te mooy sëriñu sëriñ si fi nekk sëñ Tuubaa moom la doon liggéeyal Alaaji Maalik moom la doon liggéeyal Cheikh Ibrahima ñas moom la doon liggéeyal Bou Kounta Ndiassane moom la doon liggéeyal yonent bi nee na képp koo xam ne liy dox ci pénc mi lu mu mën a doon pénc mi rek bépp débat bu ci ñëw nga daw ci parce que bu góocee wax parce que da ragal kaso wala dangaa ragal ku la mere yonent bi nee na boo doon julli ba yéeg ci kaw asamaan si bokkoo ci ma man lam yahtamma bi mu mi nii mu'miniina fa laysa minna loolu nag ku ko jàng kaso du la teree wax il faut ñu waxtaan xam ne réew mi yàgg naa di ko wax réew mi kenn mënu fee xoqatal kenn tubaab bee ëppoon doole ñépp te sunu maam yi dañ ko caw mu génn réew mi kon nañu toog ñu waxtaanee réew mi man loolu laa mos di wax parce que xoqatal mënta régler benn affaire loolu bref dama ko doon wax rek pour ñu xam suñu responsabilité ñun waxandoo dugaluñu ci bëgg a feeñ ñu ci bëgg a waxit dugaluñu ci amuñu sax jot nag ñun ñi ñëpp ay daara lañ yor yori jàkka bu dee tarixa ci ay zawiya lañ lañ juddoo mayuñu kenn ci réew mi nga ñuy laaj ban tariixa euh, lañ war a bokk parce que ñun dañoo judd ci ay tariixa ñu ngénte ñu ci ay àddiyee am na débat bu jóg ci réew mi képp ku sérieux te xam histoire Sénégal waroo ko yëkkati Sénégal loo mën a wax réglé nañ problème mu diw ci tariixa sàngam la bokk wala diw ci kuréelu diine sàngam la bokk Sénégal bi ñu amee indépendance ñu ni bëreet am république ki ñu njëkk a dénk réew mi ci jàngu bi la bokk te ñi ko jàppale ba mu jot réew mi mooy xalifa généro yi fi nekkoon Sëriñ Fàllu Mbàkke radiyallaahu anhu ba muy jàppale Senghor ñu ni ko lu tax nga gis fi Lamine Gueye muy ab jullit nga bàyyi ko fi di jàppale Senghor mu ni falloo wuj ma ab ilimaan njiitu réew lañ ma falloo kon ñiy wax di dugg ci app ci apparence su nit ñi ci wàllu diine maa ngi leen di fàttali waxu sëriñ Fàllu boobu sëriñ kër Si ñun tijaan yi dañoo gëm ni moo donn Seydi Hadji Malick te ku ne xam na ni Senghor la doon jàppale te nëbbu ko woon kon caaxaan yooyu ñu ko bëgg a yëkkati ci réew mi nañ ñu respecté même bu dee respecté wu ñu histoire respecté wu ñu mémoire suñ maam yooyu tëdd ñu respecté ñu débat boobu ku am fulla ak fayda bu ko fi tudd ñun daal li ñu gis Ousmane Sonko yëkkati na projet ñi gën a baax ci réew mi gën fee sérieux te réew mi tax leen di wax majorité bi jóg ànd ak moom parce que ku ne mën ngaa nax ku ne ba mu des ku alxuraan nekk ci dënnam nit parce que alxuraan bu jiitoo ci yow ku saxi nopp mën ngaa wax ak moom ñun Ousmane Sonko moomuñu amuñu complexe am dañoo ànd ak moom ngir daf ñoo jaay projet projet bi mu porté ku ko porté woon ci réew mi ñu daw ànd ak yow ñu def defi pexe ba kompaloo ko bañ ne bëreet kompaloo bi lañ ne ah kompaloo bi warul jàll nañ toog waxtaan ñu manœuvrer lépp li république bi moom parce que république bi moom moom mooy fi kenn amu fi ay moyens li fi moom Séné li fi nekk Sénégal ko moom bu ñu naxante bu dee gendarmerie ñoo ko moom bu dee police ñun ñoo ko moom parce que ñoo leen di jox suñu suñuy impôt ñoo leen jox ñu mën a takk der di ñu enquêter ci ndigalu peuple bi kon fii ku fi am doole peuple bee la ko ba li ci am ñun ñëpp ñu gis ko waaye Ousmane Sonko gëm ni li mu yëkkati boppam dox koo jóg ab projet la yëkkati. mu dem ba xam ni ñii ci caaxaan lañ nekk kuñ tardeel lañ bëgg mu ni yéen avocat yi continuer leen aspect juridique bu leen ko bàyyi waaye man li ma war a def fexe ba projet bi am ku ko porté dinaa fexe loolu continuer mu joxoñ ñu Bassirou Diomaye Faye joxoñ bi tamit baax na ñu wax nit ñi xam unanimité ci ñi ànd moom ñoom ñoo joxoñ Bassirou Diomaye Faye parce que déclaration bi quatre candidats yi def yéen ñëpp dégg ngeen ko ñoom ñoo waxandoo ni Bassirou Diomaye Faye mooy porter parrainage bi foofu am na nuance bu fi am il faut ñu leeral ñun ba tey dañoo gëm ni Ousmane Sonko mooy sunu plan A mooy sunu candidat mais par stratégie lañu jël Bassirou Diomaye Faye pour mu porter candidat wu parrainage bi léegi nii maa ngi leen di jox nuyoo maître Clédor lii dem naa cabinet am seeti ko munuma juridiquement juridiquement ba tey bu dee ci droit rek lañuy wax tey la Ousmane Sonko gën a nekk candidat te candidat boobu dinañ ko topp politiquement dinañ ko topp stratégiquement lépp lu ñu ci yoon may dañ koy jël waaye li ñu alxuraan jàngal moom lañu appliqué ci jomaay fay mooy laa tadxulu min baabin waaxid wadxulu min abwaabin mutafarriqa mbokk yi Ousmane Sonko dafa jàngale beneen leçon bu bees ci politique gu Sénégal politique gu Sénégal moo dépassé mën a mën a arab dafay wax ni anaa ana laysa huwa ku naan mën a mën du yow Ousmane dafa bëgg a wax ni projet bi dépassé na sama jëm bu ngeen defi pexe ba jëlee ma fi junniy Ousmane Sonko ñu ngi biir Pastef leçon boobu rek la leen bëgg a jàng kon yéen résumé bi fi may daanale parce que man man naa wax ak ñoom bari naa ci xarit lool bi may ñëw nii ki ma añandool pale ba lay xëy man defuma lu may làq bi may ñëw kii ma añandoon ñu naa naanandoo attaay ca palais ba lay xëy xam kon man xam naa palais bi ñun dañ leen di dafa am lu ñu leen bëgg a wax dañuy bañ gàcce Ousmane Sonko gañe leen moo gën a yomb ci yéen booyu Ousmane Sonko gañe leen